mbokk yi jullit yi gannaaw bu ñu santee subhaanahu wa taala julli ci yonente bi sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñoo ngi bal xaq ñëpp tey bal xaq ñëpp yal na yàlla wala jéggal tomb bi ñu fàttalante dañu koy mékk ci xew-xew bi nga xam ne moom la ñuy fee ñaar ba ñetti fan bu baree ba ba muy tànn li ñuy tànn kuy jiite réew ñun ñëpp xam nañu ne diir bi nga xam ne ñi ngi koy waajal bari na lool ay kàddu yu jiit yoo xam ne dafa mel ne dafa ànd ak tànn am na yaar yoo xam ne daa mel ne daa ànd ak moom ba ba muy sotti yàlla nu yàlla dimbali nag ba yaar yooyu mu àndal ñun ñi ko dese mu bañ a yàqoo ci suñuy yoxo rawatina benn bi ci gën a am solo ku ne xam na ne ñaar yi ci am ñaar yi ci am réew mi ko séq ñëpp ay bokk lañ te bokk yi ak bokk ci dogali suñu borom yi la bokk lu sii mu sotti rek ci dogali suñu borom la waaye moom daa mel ne moo ci raw wala mën na caa doon ku solo ndax bari na loolu nit a koy sabablu yàlla ànd ca mu sotti lu mu àndul du sotti waaye ak bokk moom bokku ci li nit di sababu naan diw ñoom lay bokk diw muy jur ak diw bi sàngam lay juddu bi sàngam lay faatu ci barab sàngam loolu moom yi nit ñi rawante ci tàdd nga ñëpp waxal guñ kenn koo xam ne daa judd rek ne xamoon naa leen ñi lay bokk su doon loolu ñëppay bokk benn baay ak benn ndey ndax li ko yàlla dogal lépp am na ñooñu nag bu leen yàlla laajoon dañ naa ko boole nag bii ma juddoo si moom waaye moo ko soob kon foofu kattanam ak ne nit it day judd rek fekk ay waajuram doon jullit waaye mën naa bañ a tànn nag doon gi ñu doon jullit mu doon bokk si ñoom. ndax loolu bu ñu jëlee misaal ci sallallahu alayhi wa sallam mi nga xam ne ci moom lañ topp di roy ay doxinam ak pas-pasam ak ay jëfam bi muy ñëw nag lislaam bii mu dàngale fekk ko fi woon mën a gaañ ñépp xam ci moom la tàmbalee moo ne ci coobare suñu borom it ñoo ñañ bokkali su doon tànn ñañuy bokkal am na am na sa bopp du ko tànn ka daan jël ay taxas seburit am ngal wala am wàccu di ko taqal di teg ay taxas ci bunt ba muy jaar di ko joxañ di wax lu ne su doon tànn ay bopp mën na ko bañ a ki may wax ñu bari xam na moom lañuy ñuy rek abu jahlin te kenn gënu koo jege yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waaye nag du ak tànnaam kon boog ci coobare suñu borom yi la bokk nit ki judd rek doon nit ku ñuul wala ku xaw a ñuul tuuti wala ku weex kenn tànn li ñu tëwoon moom mooy am nañu bu ñu doon tànn fa ñuy juddoo mën nañoo tànn beneen xeet bu bokkut ak bañ bokk ci seen benn xel moo tax Bilaal ñi nga xam ne ñi jëkk fab seen bakkan teg lislaam jaral ko ko euh, ñu ko mosaan di joxañ naa ko sëñu lay mun a yàlla ma ko sant ci yàlla lool te fu ñu ko waxee ma wax ko waaw beneen moom xanaa jullit dañ ko deful mbokk ba di ko tudde seeni doom wala seeni sët waaye dañ daa ñuul rek nga ne ko njëkk wax lañ jàpp seeni wax rek topp naan daa ñuul daa ñuul ba far ko mel ne bu ngay bëgg fàtte te ñi gën taxaw moo ko kañ na woon waxal ci yonente bi nangam mu wax ko tiit lool ñëw ci moom ne ko damaa wax ci yow lu ma wëtoon wax waaye dañ maa euh, takk taxawal ba mu wax mu wax ko aaya ba daal di wàcc man kafara billahi min ba'di imaanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman mooy koo xam ne ku mel ne yow nii nga xam ne dañ ko takk taxawal te boobu jullit yi bëreegul ni ñu bare nee na soo waxul nangam ñu jël sa bakkan nga fexe ba génn ci waaw góor yàlla setal na ko moom moom di mu metti lool li ma bëgg a wax foofu rek mooy kenn tànnul jarab yi ñuy suñu ko gënee jege si euh, ñu bari bu ñu doon tànn day tànn dëkk ci meneen réew bokku rek ni ñu bokk wala ci dëkk sàngam boobu nag duñ dëkk ndax ñay jàmbat naan amuñu li amuñu laa bu leen buñ sañoon nag ko dëkk sàngam bu dëkk sàngam amee ko ñu amee ko noonu wala ñu far dem fa sax utu fi dëkk bokk yi nag kon loolu mooy ak bokk euh, muy yan bu diis boo xam ne aaya alquran yi ñi boo xam ne ba mu ne ragal leen yàlla ndax borom kàttan la borom coobare la te léewul dara na dara du ko umb yooyu ma tudd benn bu ci dajee ci ak ci jëmmi nit képp nit ñi bàyyi ko xam su dee koo xam ne moo la su moo la gën a yaatu jëmm te léeg-léeg mu tàggu sa borom ku ko seen ñaar da nga ko moytu te kooku mi def mu suñu borom waaye xam nga nañ moytu yàlla si melokaan yooyu ak yu bari yuy tuddul daf caa teg yenn ñun ñëpp ne da ngeen fexe ba seenu bopp nag ku nekk dox wàllam mu rafet su ko defee nag su boobaa su ngeen àndaloo yéen ñëpp di jaamu yàlla yàlla jàppe ko ak jaamu yàlla jàppe ko pas-pas bu dëgër fattaqullaha wa aslihu zaata baynikum wa atiiu wa rasulahu in kuntum muminin in kuntum muminin su ngeen li ñu jox su nekkee ci yéen aslihu zaata baynikum wa atiiu llaha wa rasulahu kon jaamu yàlla guddi ak bëccëg ba ñëpp xam ko ci yow yàlla tuddee ko jaamu yàlla li fee xoolal sa diggante ak say bopp boo xam ne ngeen def su mel ne dama war a mel daal mu jàppe ko ni kii nga kon tegu na ci yàlla nañu ci yàlla dimbali bopp boobu nag ak lu ñuy wax farfar la kooku it naa bokk pas-pas tudd ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ku ne xam na ne ci biir bokk lislaam bi daara yi wuute na waaye teewul ñu sos daara yooyu ci seen farlu ak seen xam-xam bu nëw musu ñoo tere fenn kii bokk ci daara ji kay di jiite ji terewul ko fenn moom wala boobu mu bokk moom ab dara ca màkk di aj déedéet waxante wuñ nag di mayante ay soxna waxante di ay doom ñun niñ ko xamee waxante wuñ di yàkkalante bokkuñu su fekkee alxuraan day wax ne taamu alladina utul kitaaba xillun lakum wa taamukum xillun lahum suñ demee ba man di yàkkalante ak ña yoroon diine yu jëkk ya bokk yi waxante ak jullit boo xam ne bii su dee bokk di julli kenn sa juum ci yéen kon bokk bokk gi ñu yàlla boole wuute ay daara tudd ca ab wuute day tax mu gën a baax ndax ku bokkut ci fii bokku fee su fekkee yépp wér ku bokkut ci mën a bokk feneen moo ne soree barab yi yépp tekkiwu ca dara ndax ñëpp suñuy julli na bokk fu ñuy diir mën naa am ne dafa si juutee bu jugee taxaw di su fekkee fa mu jëm xeb la wa mën naa tase ak meneen moo xam moo xam ne mën na jóge fu gën a sori foofu ñoom ñëpp waaye wuute ab daar yàq ko waaye wuute nu ak li wax euh, culture ay aada yàq ko waaye fa ñuy daje di ay mbokk mooy pas-pas ak jëf ba ku leen seen xam ne ñële ñoom jiw la moom la yonent bi sallallahu alayhi wa misaal ne jullit ak mbokkum jullitam mi ngi mel ne rek yiy daje tabax am ku ne xam na nit ku mën a tabax day dëkk am ba noppi su boobaa mu wuti yamuy boole mu doon ak tabax la ci jëkk mooy fi muy tabax fi muy tabax fan la wuti suuf wuti ciment ndox feelu ñu ne muur mën na taxaw su noppee ñu dem wuti koo xam ne xam-xamam mi ngi jëm ci luy tax ab tabax jub kon ñi liggéey ci tabax ñu pare la ko ca ba ci ki nga xam ne mënut a tabax moom waaye mën naa tooyee jox ak ka toog di gone bu leen di jëndali kafe wala mënoo caaf ni ko tabaxkat yi fonke wala ñu àgg ci war a def néeg gi ci biir lamp yi kese liggéey war cee indi ndox war koo taax ba ku ko seen xam daal ñuul wala tabax bi daal kon ñu ciy liggéey ñu bari lañ kon loxo yooyu yëpp daje mu tax kon lii tax ñuy wax diine ak lislaam couleur yu wuute yooyu ak déggin yu wuute yooyu moo ànd ñu bokk lool ci lenn nag loo xam ne ñëpp ñoo see tasee lool muy lenn muy julli ak aj màkk ak yemel ni ñoom te mbooloo di ko defa ndox jàkka ji juma ji toog dana jafe lool nga mën a xam ne kenn ku nekk kam dendal lu mu noonu la ñuy fas moom ba tax koo ñëw yomb naa xam ndax bu amutoon bu ñëw si jumaa waaye nag gëm-gëmam mu jëm ak ak fu mu fu mu jógee li muy jëm kon li ñu dajale la mbagg ak mbagg tànk ak loolu mooy ak bokk dëgg dëgg dëgg dëgg moo tax yéen ci sa bi mu ko waxee bi sax ko ci tabax ne day mel ne tabax mu la moroom ja poto moroom ja suuf ak ciment yeneen àndal daf ko misaal ràmbale waaraamam yu tedd ya ñaari loxo yi dañu muy benn loxo sallallahu alayhi wa sallam mu nekk lu misaal ci suñu jëmm ji jëpp la far benn yoon mu gën a maasale nee na jullit ni war a bëggantee ni ñu war a yërëmantee ni war a ñeewantantee dañu mel na rek ku ko bëgg xam na xool jëndi boppam kenn ku ne xam na ne léegi-léeg ñu laaj diw lu ko tee xëy ci tey ñu ne bëñ may metti moo ne bëñ bu ko dendalee ak li ne ci jëmm ji tuuti la waaye su xasee ba raw moom cër yëpp dañ koy jàppale mën naa te diw xëy waxante wuñu ak loxo buy metti jëmm loxo bi ci boppam waaye bëñ boo xam ne boo si ñu mokk kenn ko xam sax mën naa tax yaram bi ànd ak moom jàppale ko ci loxoom boobu moo waaj a far waaj jëmmi waaj a far dafay du fa rafet nee na julli julli noonu lay war bu sibiroo sibiru mën naa am fu muy nekk ci nit wala lu koy jox nit waaye yaram bépp ay àndandoo di lox du bëgg lekk ndax gémmiñ bi du nangoo sax dara yoxo yi du nangoo tibb tuñ yi nga ab gëñ yi sax duñ ko naan dañuy solidarité loolu nag mbokk yi mooy mbokk jullit buñ ko gënee dolli tuuti day mel na garab bi sax ci sa biir kër garab gi bu buñ bëggee buñ amee lañ ci bëgg kër bu yaatu lay doon kër bu yaatu koy maye mooy wan ban wanxaas yu wanxaas bu nekk banxaas wanxaas yi wan banxaas bu ñu nekk jëm fenn ak i xobam bu ko defee kër kër ga daal di lëw mënees caa di ca def lépp yàlla santaane waaye nag car yooyee wanqaas yooyu li ñuy gudd gudd koo ci topp bàyyiwoo ci gudd dong mu lay mën sax moo tax ku ko bëgg a rey maa ngi leen si gor wanqaas yi taxu koo dee gor car yi taxu koo dee li seet gudd baa nga taxaw buun boobu nag la ñuy jox ndigal yàlla digle ko dige ca ne ku amus ndoxam ne ko ca sànni wànqaasi mën a dem fu nekk cari bu ci ne mën a am xob yam war a am waaye su tóotóor jotee mu tóotóor moo koy tax a tóotóor su am ay doom jotee tax a amee doom waaye nag ku am luy tax màgg gi gaawe lu mu ca mën na ko te def fi yàlla tudd bokku jullit yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jëfe ko ci jullit ñu àndaloon jóge Makka jëm Madina wax leen ko dàngal leen ko am ci ku dem ba naan diw seetal ci sama soxna yi ku la si gënal ma fase ko nga jël nan kaw xool ku la si gënal nga ne ma diw ni mu a gënal ma bàyyi ko nga jël ko ndax amatu sax xool leen boobu boobu moom moomu dàngale ak ah, ñam ko doon waxal nañ ko gaaw a dégg ñoo dañ lañ fiy def ci ab diir la dee gàtt gàtt ba ci ñi ci gën a gudd fan xel xalaatu ci woon di wax bay tudd sax naan man fekk naa fi bi sallallahu alayhi wa di ca jublu walla leen ne du ma seen morom yéen kenn musu ko kaf ba jëm ca dañoo xam ne leen lu nekk ay ñeenti yeeg moom rek. moo tax lislaam ku koy dund day génne ci boppam melokaanu garabu nit ki daa xees daa ñuul daa xonq waaye gan giir la bopp xaar maanaam néeg ban na ko néeg néeg baa luy métier luy métier foofu doy naa di nga ko xoole waaye lislaam xamut it ñun ñooy waa barab sàngam kese kese waaye lislaam xamut taxaw ci kanam jigéen ñi di yëkk seen ay mbaggam naan man góor la lislaam xamut ndax doon gi nit doon góor doonu ci dara nit ñu loolu ci tànn ay way jur loolu la ci day ñëw la fekk ko moo tax euh, bokk yi ci ci mama mi suñuy maam ak maamaat ah, jotoon nañ ko lijjanti ba mu lijjanti ndax liñ doon wuute wuute ay jëmuwaay boobu diin sax ñëwagul waaye bëgguñu woon luñ gëm kenn ku nekk maamam la gëmoon teewutoon ñu sakkoon pexe ci li ñuy def ba jaxasoo ci seen biir am na dëkk yooyu dañ dañoo tëraloon ne ñun ñu sant nangam buñ jëlee ci suñ ci suñ biir nañ ko xaraamal waaye kuy jël soxna nga dem ci ñu sant nangam am na ñu koy topp ba fii mu nekk am na ñuy topp ba léegi si benn sant duñ ci jël soxna ñoom maanaam ñu ñu bokk duñ ci jël soxna ba faaw ca xeet sangam la ñuy dem jël ci soxna ñooñu wax ko ñeneen ñi wax ko loolu lu jur mooy dëkk bu xumb ne daal doon te am jàmm ndax koo borom noonu teel. dana am yooyu du fi leen mën a àgg noonu lañ ko dose woon ba mu gënee yaatu yi ñu dugal ci li wax carte boo xasee ba sant nangam moom lu loolu ko sant nangam defati moom mën nga ko muñ da nga ko war a muñ ndax yéen yéen a bokk li bokk naa ba fi tudd li nga dox ci biir askan yi lu mel ne ñun xaal fu ñu fekk séeréer dañ ko naan maala moom moom it mu naan maaleen moom kafre am na ñeneen ñi ko séq na nañ mën sañoo tudd séeréer ak jool ba xel yi dëkk ci réew mi yépp man comme ñun ndimbal liñ ci am bu ñu ko farfarloo xaaj ndax kat ku dox tuuti ci suñu yi nga xam ne ñoo bokk am na ci dëkk yooyu nit ko gis xam ne xeet sàngam la ndax am na yi dañ koy wutal maam la ci jëmmi nit ki ay njocc wala ay ñaas ñun nag musuñu jaare ñu foofu ci kaw ak gorom lente duggante ba sant yi ngay gis da koy gis ci ñeneen ñu làkk leneen nga naa ko yow xanaa nangam nga mu ne waaw xanaa ci samay maam boo ku nekkoon par par par parlo gi nga xam ne moo am ci xëccoo politique bi li tax jëru ko mooy ñi nga xam ne ñoo yëngu ci politique ñu dafay xam la ndax li ñuy wax fikk euh, fikk muy idéologie neexatu cee xàmmee te moo ne fa politique juddoo ñoom fi mu toll nii dañ ko ki ki boo demee yi nga xam ne dañ koo fonk ba léegi moom ki nekk jaar ndeyjoor du mës a jaar càmmoñ mu waaye ñi ma a nekk càmmoñ duñu mës a dem ndeyjoor mu ñenn ñi ñoom ci digg bi la waaye da gis koo xam ne ndeyjoor la ci réew mi ak càmmoñ ñu àndandoo ñoom ñaar kan moo ci bàyyi lam gëmoon ànd ak a des ñoom donc ñoo ko mën a xam te dañuy xew di xew yi nag moo tax dañuy xam ne xel yi neex naa dégg te jaxase boobu yàgg naa am ndax bu ñu xoolee li ko tàmbalee année 1945 bi jëm si 60 ku ne xam na nam demee woon nit ñi demoon nañ bay sol ay yére yoo xam ne da ngay dañ lay màndargaal ci jiw nga faree moo tax boobu suñu mosakat yi tontu moom daf naan man man la ma tudd seen tur Senghor man lëmiinu ma man maa ngi ci fël fël mooy kan l'islam rek maa fa fa suñu borom jox lu ma war a bokk nit te yàlla sant ma muy bokk kum dogal ba agsi ci bokk pas-pas bi dara jaraluma ko loolu nag moo ma ñëw ba fii mu nekk nii da ngay ku naan ku wateel jiw di ca jëlu ko ñaata nit lañ fi wateel mu gañe ci suba sa lu ko téléphone ca gën daw suba sa ngay naa dem ko ñu ne la est-ce que amul nga ñu teg ci ay fan mu doxu fa tux maanaam buy tuxu li yës ci tuxu lay def gars yi dañu tuxoo Makka di dem Madina tuxu gañ defoon mooy tuxal seen pas-pas bàyyi ba alal la mën nañ faa bàyyi kër ga ñu kër gi ñoom la waaye du doo ko teg bët li fekk ñu ngi yor alal te su ko it bare na ci ñoom dañ leen siiw dem feneen dañ fa ñooñu bokk yi jërul wax loo xam ne dañ la koy ëllëg jërul yàq sa pas-pas ndax bu ëllëgee duñ la laaj koo faraloon sa pas-pas lañ lay laaj di ko ko laaj moo tax su boobaa nag kenn ku nekk ak tontoom la muy tontu soo tontee ne diw la faraloon far te yëgutoon ne moom nga faral ba waxtaan la la wax bañ def la ci luñ ci war a luñ ci war a defi moom naan xawma ko kii xawma ko su boobaa koy defal jaaxal rek def moo tax yéefar yi ñi nga xam ne duñ ay jullit di dund ci xalaat kese xam-xam bi lu mu réeree ñu doon alxuraan nee na bu ñu yonent bi sallallahu alayhi wa na dañuy xalaat te képp bañ demee ba xam ne par kenn mënut a dem te lislaam ngi yokk dañ ne kon léegi nañ saxe ba nekk benn chaque lan ngeen ci kaw rek ba bu ñu seen ragal ñu rek loolu nag ginnaaw ñeneen a mën ko mën a ñeneen a ko mën a xool te dara bu wële wële lu kese. waxaale wu jullit bi nga xam ne moom daa am lu wér lu mën a teg loxo lu ko boolee mbokkum jullitam boole ko mbokkum réewam boole ko mbokkum deretam mbokk yi suñu la waxee ne ñett ñi mu tudd garaw la ñooy xëccu bëgg ca jot na ñu songule ko nag ñi jàng ci wolof xam nañ ko bu baax mooy ñu xëy la kaas ngay naan ba mu xaaj ñu dolliwaat wala ñu seexal la seppale am na ñoo xam ne yëpp ku leen seppale am na ñoo xam ne mosoon nañoo sukk ci ndab yi ba ñu raxas ndab loola ba yàkkaat leneen ndab keneen yor ko ñu bëgg te ndab la waat ak ki nga xam ne moom day seen ndab rek xamul lu ci nekk mu bëgg ca jot ñoom ñu wax kenn ku ci nekk. Euh, yëg na ne moom su ci bëggee jot faaw mu dem ànd ak jiw jiw jiw jiw ak ci xalaat kese teg ko ci xalaatu ñëlee nga xam ne gëmuñu yàlla du may ay xalaat kese waaye gëmuñu daal par kenn moom mënut a daan li muy bëgg moom par kenn mënu ko may ñu ñu la ko mel ma a wërante waat ne a def ñu ne leen ci def nangam ak su ko demee su ko defee ñu doonoon genn kàddu di wax ku njumkat la waaye li ma waxoon li ma ci ñëw léegi rek ci njëlbeen bi politique moom xawma ci lu bari waaye su fekkee mooy lii ñu moom wax dëgg yàlla li li gën a sedd ci aw yaram nit mooy toog di xool rek mu sotti nga xam ne sax ndax gannaaw dañuy dugg ci biirum néeg wax door a génn ci ëtt bi wax ak waa ëtt bi génn dem ci penc kii dem toogee ne kay toogee ne kay toogee ne ku ci nekk fas kanamam mel ni ñu mus xamante te buñ ci gis yi mën nañoo rayante yow ñu toog ci penc mi ñu fekk la fa boo ci duggee bu ñu tàppante fasu la wéy sa bokk yàqu sa pas-pasu diine yàqu yàlla lu ci yàlla yàlla nañu sa ak ak jàmm nag ñu sotti si jàmm ñu weesu ko ci jàmm luy weesu doomu luy weesu doomu la fi mu toll nii fan yi jàll li ci waaye waxutoon du ko wax xanaa beneen yoon te beneen yoon bi rek jamono day soppiwaat leneen lay xewaat waaye liy weesu weesu doomu la moo tax ku yem def ndànk rek ku xëy su fekkee maye nañ ko dem liggéey. su xëyee fa muy xëy ba noppi ba def la mën a def sànni aw xamam sànni dañ ko tuddee sànni waaye ak diis ndax kooku ka xam ne bi bu fekkee moo jàll lu mu àtte dana def noonu nag mbañ gàcce tuddul mbañ gàcce waaye ab ab wurmbal la tudd loola wurmbal la tudd boobu nag mbañ gàcce wurmbal ci suñ këri kaw mooy fi ñuy laale ndox nga xam ne dong yaa nekk ak yàlla te su boobaa yi boo fa nekk yàlla ci wurmal bay dañuy bañ nga xool sa yaram gannaaw ki ne ci wurmal moom képp ku nekk fa dañ koy mooy loolu xoolal xool sa yaram waxante bu def xob mooy sànni wala xam ne ëllëg mën naa daganal lu yàlla araama mën naa araamal lu yàlla daganal waaye nag du a ñàkk faw kenn jiitu ci pas-pasu jullit yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo ñaar bu àndee di julli na kenn jiite ñett bu ñu àndee nañ jiital kenn ka topp sa gannaaw kon faw kenn jiitu ñëw sànni xob la te dem liggéey ndax kat jërta bañ a liggéey ndax kay jër a doon bala mu ñëwaat ci yow waxtu wala jotaat kenn waaye ci mbir mbiri bopp lay nag su taxee bàyyi sa mbiri bopp yi ngay suturloo loolu ñàkk fële mënu koo weesu yàlla nañ ci ànd ak dal ak sago ba mu jàmm am na ñu wax ne it imaam bi ma doon tudd keroog ca réew mi dana ñun fan la am na ñoo xam ne ay léeg dañ ko jàpp am na ñoo xam ne dañoo defe ne li mu xaalis bu takk bu def ci saak bu ñu ko def kenn du ko delloo kooku ba ma ko la nekk imaam jokkoo na ma fii ci dëkk bi ak ab sëriñ bu mag mu ne ma xam na ko ni mu xamee woon kon lu wér kooku nag mbokk yi am na lu mu tàngale waxoon nañu wax junj nañu ko kanam la mu tàngale mooy ëllëg si biir ku ñu fi indi la loo xam ne nit ñee ko soxla ci ëppee kër neex nañu ko waaye rikk bul ko ngar daal jëm ndax kat am na ñu gis defe nañu jiitu waaye bu ñu nee wàññi ko ren ñu féetewoon gannaaw ñu defee ñu fay gannaaw ñu leen ku dëkk ca Bamako ak Sénégal yi si diine ku dëkk ca Bamako dàngal na waa Sénégal bind bu xóot bu rëy bu rafet boo xam ne diine nangu na ko nangu ko waaye xàq dëkkaloo nangu ko kon suñu desi laa laa bu fekkee ëpp na sa dundu tay lu fenn nit wut sëñ bu mag nee la ko ëllëg tege bu la ko suñu dara baax tey jii la nit di fàggu lu mu lekk tey lu ñu lekk moom tey tax suñu la ëndee loo xam ne na ànd ak reer ak ndékki nee mos nañ suñu ne kenn mosu ko yow mi lañ ko ëndee nee na déet dañoo war ci dundu waxat mag ñi daa leen def bu ñu soppee seen ci dund gi nga dund jàngale yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne bu kenn ubbi sax palanteer mu jëm ci dëkkandoom te ñaanu ko ca ndigal moom may ko la wanaaw nekk noonu buy toog su ko wóoree ne bu taalaalee dana xeeñeef dana ca mën a may su taalaalee wanaaw dina yokk ñu lu bëgg tànk ca di dee mag ñi daañu nag bu ñu soppee seen cin xool ndax li mu baax lool la ñuy xalaat muy ruus dem ci penc ma muy xeeñ waa penc ma waaye dañuy woo dama la wala ma sa bàyyi diw wala ma sa maam bi ñu bokk ko tiim lu mu mën a toog lu si waaye mën a am bu baax waaye nag bokk yi léegi dañuy joxe fenn rek loolu imaam jooju dëkk ba mag Muhammad jikko jàngale naa ni Eh, am na lool ëpp na kenn te moom keroog soxla lu góor ñeneen na ko soxla woon dañ ko yëg ñooña xaw ma nu ñu defoon ñooña waaye la moom loolu la war a doxal kon dund na diine fii dëgg dëgg dund na ngor dund na àq dëkk moo ne bokk yi day yonent bi sallallahu alayhi wa sallam boole na saxaaba yi ndax teg te benn yax bu yem ci am guddi la nit di wax sax ku ko daj rek bu ko sama morom kenn ku ci ko jëlee bu ñëw xool ndax dina waaw lii nag diw ne man nag def naa ko dama ko jox diw rek dama ko jë damaa defee diw ko sax dama ko mu ne li kon ne li ma doon bëgg man ngi bëgg a kenn ku ne daal bâtiment ba mu ma xool ak yaram nit ki mu ma xool na yëg li moroomam di def moo tax ñu tuddee ko bokkum ci lislaam te ak bokk lu muy laaj ëllëg wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arxam dinaa jege moom waaye Sénégal ñeneen ci arxam la ñuy dugg ndax amul dëkk booy ne doo fekk sa mbokk wala sa mbokk moom kon boog politique yi fi daan dem jël bu wax ci nit ñi lay xoolee ëllëg ak yàlla dina ma rek sa diggante moom yàlla يغفر الله لنا ولكم ولسائر المسلمين